marché bu mbàkke jaaykat yëpp mànkoo nañu tak séri masque lu ko may da ngay fay juróom benni témèr masque yi sante yalla bu baax xamni yéne ngi ar di xaar suñu jabot ñoo ngi sant bu baax yalla na fi jog ak jàmm xanaa doy war doy doy na war mais mënul ñak mi def ko comme état mom loolu soxla mën ta ñak pour ñu def ko parce que ñom ñoo ñu fi nekkal il faut ñu santaane dañ koy def waaye nag doy na waar daal métti na doy na waar waaye dañu doolee sant yàlla rek ak jéem cee nekk parce que bu ñu xoolee tamit suñu intérêt la parce que bëgguñu leen lu dul yaramu askan bi kon bu nu takkaloo ay masque ak di ñu teg yenn kii yi du donte métti mais dañ ci jéem a ànd ak ñoom dox rek. waaw masque yi c'est parce que feebar bi ci bakkan lay jaare ak ci gémmiñ. donc baax na ñu takk masque. waaw parce que buñ ko deful rek xam nga. da ngay waaru daal te et puis dina protéger lu bëree bëri dina moytu dina dina ñu mën a aar aar ñëpp kon masque baax na daal c'est bon. waaw marché ba respecté nañ ko trop fi mu ne moom ñu ngi koy ñu ngi koy utiliser bu baax a baax a baax. gis mooy moom la ñu waroon a njëkkee rek waaw moom la ñu waroon a njëkkee daal waaye nag comme préfet nee na ñun nañ ñëpp takk masque daal ñun daal ñu ngi ci li préfet wax daal ñun daal ñëpp ñu ngi takk masque bu ñuy jaay ba ba ñuy wàcc ñu tak suñ masque suñ demee suñ kër bu fekkee masque bi dañ koy fóot ñu tekki ko ko def ci ordre ak saabu fóot bam set wer après ñu tek ci fer mu tàng ñu tëkkaat ñun da noonu lañ ko japp ñun da lepp lo xam ñu muy xex jàngoro bi rek ñu ci biir waaw. waye ñoo ngi gorlu si ndigal yi nga xam ni manam mom la mom la ministre bi santaane ak gouvernement bi ñu koy jëm a respecté ndax wax deug yalla bo setlo marché bi gis nga yépp ñepp tak nañ ay casque ñepp tak tak nañ ay ay ay masque wa ay masque di moins wax deug yalla ñoo ngi ñoo ngi raxasu ñoo ngi gorlu si masque yi. ñoo ngi sàmmonte tamit ak heure yi di di di précipité si temps bi pour maanaam mën a teel a tasaaroo pour maanaam kenn ku ne delluwaat sa kër si jàmm. comme comme autorité dañoo jël dogal ah ñuy liggéey te li ñu def nii mënuñu ko ñaaka def pour man takk masque bi mooy nekk li nekk yoon loolu ndaxte lu ko mooy rek il faut ñu jël seen décision ñoom te suñ ko jëlee métti askan wi yëpp comme dañoo woo ci lii nañ leen fekk ci lii su ko marché yëpp defee mun naa am li ñu bëgg ñu naa ah, dina mën a sotti ñoom te li ñu a ndax lepp ñun lépp ci lepp rek sutura la ci ñun comme ñom li lañ bëgg rek nañ leen ko defal ah décision metti na mo metti na waye nak nañu ndax nguur mom ñu bëgg rek nañ ci and ak mom ta suñu wér yaram lañ bëgg kon nañu fekk ci liñ bëgg rek ndax xam naan pour ñu takk loo amul benn intérêt ñom nit ñi nak pour ñu takk ko dinañ ko takk ndax bëgg nañ suñu wér yaram mais nak metti na waye nañ muñ rek yalla nako yalla safara rek wala mo yagg waaw maski nak mom lu baax la vraiment niñ ko yeex nañ ko def dal parce que it euh, mbir bokoy jël dang koy téla jël ñun Sénégal nak loolu moy suñu problème dara day ñew ñu jël ko à la légère mu dem ba ëpp ñu doole nak ñu jóg dang dang fu ñu dal daw jëm fa mais li bu ko télo na jël mesure buñ ko télo na jël ko nag ni affaire yi man na bañ yexi fi dal fii daal. di ko rafetlu rek parce que vraiment ku la ne sangul sa tar la bëgg ko comme que li ñu nekk ñun doon ay citoyen té lépp lu ñu def ci walu santé japp na né ñun ñun lan koy défal ñun ñu nekk ci marché bi ñun ñoo ci wara jitu kon li mom exemple la bo xamanteni ni citoyen sénégalais war na def bépp ko xé nek nga sa gox it war nga ko fa def ba tax na ñun wa marché dembu sensibiliser na nit ñi def ay sono fexé ba nit ñi ñepp port masque fexé ba jaxaso bop bi ñukoy éviter ci marché bi ko jaaykat yi di leeral it ne ñi nga xamné ñoy séni client ñi ëpp ci ñom tak nañu séni masque té fièvre bi da fay faté ah man de sama client bu may wasal ya ngi tak ñi may wasal ji ñoo ngi tak masque waaye sonn nañ lool yàlla na ko yàlla jëlee jàmm ak mboolem jullit. sama client yi ñu ngi koy def wax dëgg yàlla ku fi ñëw taxaw da ngay takk masque avant da ngay avant nga yi ñëpp a ngi koy takk waaw wax dëgg yàlla. non buñ ko takku man am na ñoo xam ne dan la man de ku ko takku dama naan demal takk ko parce que mooy mooy mooy loi waaw mooy yor waaw comme Aly Ngouille Ndiaye loolu la wax kon nan ko nan gëm rek takku ko respecté ko mooy tax feebar bi mu mën ñoo kii daal dinañu mën a kii te ñu respecté sart yi de raxasoo saabu yëpp xam nga waaw. waa client yi maa ngi leen di sensibiliser ñoom it ñuy takk masque fi ñu toll nii ku ci wàccee sa masque sax dama daan la aj ko. yaa ngi dégg pour nga ajaat ko quoi parce que mooy li jëm boo takkee masque te ajoo ko it protéger wu la parce que loolu la daal. waaw ñu ngi jël yeneen mesure fi ñu toll nii suñu xel sax ñu ngi ci wut ay gel yaa ngi dégg teg ko fi nga xam ne client bu jënd ba pare boo jokkalanteeg ñun ñu jël gel bi jox la nga raxasu dem sa yoon wa client ñi ngi takk gis nga leen ni kay bu la neexee ma ngi leena jël gis nga leen client yi ñëpp ay takk ñëpp à l'unanimité waaw wax deug yalla ñëpp ay takk wax deug yalla dal ni kon ministre bi diglé muy muy muy masqué nit ñi mom respecté nañ ko fi ci mbak fi ci mbak mom ñepp respecté nañ ko à l'unanimité ñepp ngi koy tak wax deug yalla bu ñu yalla suñu borom kattanee daal dimbale nu dal feer mën na fee yem mën na fee bañ am tànk kanam quoi. waaw waaw waaw depuis demb ak tay mom vraiment client yang koy respecté. ñu ngi respecté mesures yi ñu ngi koy dox ñu def ñu ngi koy daal ñëpp takk nañu ay masque ñun ñuy jaay ñu ngi ak suñuy gel ñu ngi ak suñu ak saabu. waaw clients yi respecté nañ mesures parce que boo xoolee situation marché bi fi ñuy tuddee marché bi tey ji actuellement boo xoolee amul tampaloo amul dajaloo te boo xoolee marché bi ñëpp actuellement for nañ masque waaw man dama indi damay chaque jour ma day ñëw naa indaal lu ma dis sama cliente bu ñëw naa ko jox masque pour mu takk loolu vraiment ñu nit ñoo ngi leen ciy sensibiliser ñu nit moy marché bi dafa don lo xamanteni dañ ko délimiter won ay place mais place yooyu débordement da ci am bo gisé mbéd mi xamanteni moy mbéd central bi génn ni bokku ci marché bi mais bo xolé la fay day ci mbolo ëpp na trop lool suñu sañon état jël ci ay mesures quoi fiñ wara dem fepp dam nan fa nak man ma job dem na ci commandant dem na ci préfet dem na ci maire fune ne dem na fa mais ba tay safara dess na ci dal vraiment ñoo ngi leen ci xaar parce que marché bi buñ ko tejé ñun leen ko tejël suñ ko ubbé ñun ñun ñoo ci jariñu kon lepp lo xamanteni mi ngi fi am te doonul loo xamante ni dëppoo na ak ni ñu bëggee norme marché di ko vraiment li ñu man mooy ñun wax rek waaw loolu daal lan ci mënagum. Mbàkke Bawol jamono ji mënees na jàpp ne juróom-ñaari doomu aadama ñoo jotagum am di coronavirus ñi deke ci ñoom dëkke foofee sa sancaan ya moo tax marché bu Mbàkke moom nu may leen gët bàyyi leen nu wéyale seeni yëngu-yëngu waaye nag fii léegi jamono bu fekkee mbir yi dafa jëm am li dal marché dal leen Thank you.